asalaamaaleykum wa rahmatulah yéen a ngi déglu Vibe Radio téeméer ak ñaar yu tomb ñett mi di dalee nag jàmm ñu ngi ci di weer fukki fan ak ñett mars 2022 ni ñu koy defee ayubés bu nekk am uh, gan tey ji nag di dal El Hadji Amadou Samba di uh, directeur bu coopération ak partenariat ci caisse de dépôt et consignation bu Sénégal nekkoon ba tey candidat ca maire bu uh, Tëngéej nekk ba tey njiitu ànd sëñ bi Samba ñu ngi lay nuyu di la dalal bi mooy ñaareel bi yoon ñu lay bu njëkk ba dañ laa fekk ji woon waaye bi yoon woyof nga ñu ngi lay dalal fii ci Vibe Radio waaw maa ngi fay bu baax di nuyu tamit euh, ñi déglu yëpp si Vibe Radio euh, di la nuyu bu baax euh, di am mbégte ñëwaat fii. ayo ak mom inshallah ci jappandou ak Mouhamadou Fatou Ba defal dinañu defal bilan euh, campagne bi nga xamanteni election yi nga xamante ni nañ ci jafé jafé nga xamni xaw nañ ko ku ci tëggeej te mu ni woon yor gi ak it walu législatif yi nga xamni mom lañu la parrainage bi question yoy wax nañu ko jot gi it buñu ko mayé inshallah dañu wax ci jafé jafé nga xamanteni ñang koy ngi ko fofé ci Ukraine mi nga xamanteni russe mo ngi russe mo ngi koy sonal waye euh, niñ koy defee ay bés bu nek dañ leen indil ben hashtag ay bés bi nag liñ japp ni modi di bari na sax ay sujet waaye biñ ci jàpp daal moo di ab xët woo xamante ni ñun ñu ngi ko jëlee ci Walf yéen a kaay mu ñuy xamal ni at bee ñu génn lu toll ci junni ak juróomi téeméer ci ay rek sëy yoo xamante ni tas na fii ci Sénégal nee ñu rek euh, ñooñu ñu ko joxe moo di répertoire familial des affaires sociétales ak familial ak bu administration ca greffe ñu junni ak fanweer juróom-ñaari euh, sëy yu tas yoo xamante ni contentieux lañ ko dippee juróomi téeméer ak juróom fukk ak ñeent yoo xamante ni daanaka dañ ci waxtaan ba juboo dogal yooyee nag am na yeneen ci ay mbir yoo xamante ni dégg moom daal euh, génn na ca waaye nag euh, mbir yi lan moo ko waral ak it nan lañ ko gisee waral euh, ki nga xam ne moo di Chantal Balsi sunu naataango talal ci microm sociologue bi di Pathé Mbodj ñu teewlu ko. bu fekkee ni nag duggante nga ak nit am loo ci sent am loo ci xaar am loo ci yaakaar te gisoo ko bu fekkee ni yembuloo sorop ndax yenn yi moom tamit dafa fekkee ni bu ngeen demee tuuti ay atoy na ni ko wala fi waxee mbëggeel desatu fa ngor moo fa des bu fekkee ni ngor googu amatul xëy na nekkin bi tamit du mën na nekk dafay xaw a jafeñ daal xam nga bu fekkee ne bu yàgg ba ci li euh, kër yi ñu daan nekk kër yu yaatu la njaboot bu yaatu njaboot gu bare ku fa nekk nga xam ne ni xamuloo ku jur kenn ñu yore ay kër yore ay kër yu yaatu léegi ñu dem ba ñu defal la cent cinquante mètres carrés cent cinquante mètres carrés daf la wóor ni boo fa dugalee ñaari soxna ku nekk am fa juróom-ñaari doom ak euh, ay surga xëy na nekkin bi dana xaw a metti daal xëy na jikko yi dana ci xaw a gën a mun a naqare Pathé Mbodj di sociologue euh, si Amadou Samba <laughs> déglu nga ko de. ak <laughs> sama jàngat mooy d'abord population bi dafa yokk donc tas yi dafay yokk hmm. euh, beneen bi mooy jamono bi ñuy dund euh, dañ nekk si li ma jàpp phase transitoire mooy euh, dañu jóge si jamono joo xam ne Sénégal ñun ñëpp bokkoon référentiel moo si joxe exemple bu ndaw xale yi doon fo si Sénégal yëpp boo ne dóor daa dëkk boo daa dem ñëpp xam nañ ko. Hmm. mais tey soo demoon jaxa gémee ji. muy benn dëkk. nga ñëw fii si Liberté 6. Hmm. mën nga gis xale bu ne fii ak xale bu ne foofu bokkuñu sax ni ñu évoluer alors aduna day dox nag ba ñu mel noonu daje bëggante mbëggeel nag defe naa moo waralal sëy. Hmm. mais aussi déggoo ak muñalante. alors ñooñu bu ñu nekkee bu amul lu ñu wax euh, muñ. lu ñu wax ak tolérance maanaam tolérance la si war a am. mais aussi muñ donc jàpp naa ne ah parfois mun na dem ba mbir yi mujj comme fi ñu wax si tas. Mhm. suñu sañoon nag defe naa ñëpp lu ñuy ñaan mooy sëy mu continuer mais nag bu fekkee ne munut ñàkk bon am na sax diine muy diine islam moom lu mu wax mooy du ma sëriñ nag. <laughs> mais comme que musulman laa mën naa si wax. Mhm. mooy yàlla bokk na si li nga xam ne moom la gën a bañ mu am mais nag xaraamul. donc su mënul ñàkk boobaa tamit foog mu am léegi nag li am solo mooy nan la ñuy tase alors euh, cas ñu wax que peut-être c'est à l'amiable mhm. ah loolu moo gën rafet ndax loolu mooy wane ne askan bi ah nit ñi dinañ waxtaan ba juboo su fekkee ne euh, tàggoo mënul ñàkk mhm. loolu nag ñu bëri war nañ si jouer rôle muy kilifa yi ñuy ooyee kilifa kilifa boo mënti doon kilifa diine kilifa aada kilifa politique nan la ñuy def ba am ay mécanismes de gestion des plaintes loolu dafa xaw a paan si suñu réew yi mhm. mécanisme de gestion des plaintes yoon la boo xam ne nit mën na fa jaar plutôt que mu dem directement si justice maanaam ñu mun leen réconcilier su munee nekk su munul nekk tam ngeen mun a tàggoo si jàmm euh, ndax dinañ waxtaan ak yéen ba ngeen comprendre donc loolu bokk na si mbir yi nga xam ne en tout cas ñun gis nañ ne war na mun a permettre ñu gën a améliorer la situation gën a mun jàngat euh, sëy yi tas mais aussi suñu dëkk war na tendre gis naa ne am réew yi su ma juumul Maroc. Mhm. yemul sax si sëy wala leneen la maanaam ku nekk si askan bi war nga mun dem porter plainte pas à la police wala à la gendarmerie mais si foo xam ne askan bi ñoo tànn ña leen fa toogal. Euh, la société civile dina fa toog genre conseil kilifa diine dina fa toog. Mhm. nit ku sage dina fa toog. te ñooñu tam am nañu sutura. léegi boo ko ñu waxtaan si xool oo leen yéen ñi nga xam ne yéen a jote xol nu ñu waxtaan ak yéen won leen ne leen lii mun na ñàkk nit ki mun na am intérêt ba nga xam ne di ngeen gis ne bañoon reyante même su ngeen mënul delluwaat ngeen ngeen tas ci jàmm yooyu man gis naa ne mun na nekk benn alternative si suñu askan te Sénégal ko bu sénégalais ko bëgg masla la. Mm-hmm. dañuy wax sax réewu kii la. teranga waaw réewu teranga nag war na mun a am mécanisme yu mel noonu. wax di rek kaddu El Hadj Amadou Samba ñu ni sarax nag daal di dugg ci euh, waxtaan wi euh, jamono bi ñi ngi ci weeru mars. Mm-hmm. Euh, njorte son nga ni. tey ji bu ma toogee dama la wax monsieur le maire. waaw jërëjëf euh, bien sûr defe naa ku soobu si ay élections locales nekk candidat si dëkk bu mag bu mel ni Tëngéej am nga yaakaar et bi ñuy liggéey tamit euh, vraiment liñ doon gis sondage yu bëri. Hmm. wane woon na ne war nañ mun gagner. ba si sax à quelques euh, jours hein, des élections alors lan moo tax ñun gagné wuñ mun naa ne gañe nañ gañewuñ peut-être nekkuñu tey le maire de la ville de Rufisque ñuy féliciter au passage euh, monsieur le maire euh, le docteur Omar Cissé. Mm-hmm. ak euh, ñi mu àndal yëpp si mbir mi. mais aussi li ñu gënoon jàpp mooy ah wax nañ fa loo xam ne am si yaakaar muy programme bu leer te bi ñuy commencé wax programme defe naa c'est rare ñu gis ñu indi programme comme ñun niñ ko doon indee si jamono boobu. nit ñi sax dañu doon wax lii nit ñi xamuñu ko xamuñu programme <laughs> mais si fin bi gis naa ne candidat yi Sénégal yëpp presque dañu doon présenter programme mhm. yemul foofu ñu doon prôner ay valeur alors yoo xam ne en tout cas fuñ mos a jaar alhamdulilah les gens ont adhéré en tout cas si li ñu ñu woon ah si li ñu gis tam résultat yi ñu am nous avons 5000 voix mhm. donc à la ville de Rufisque wane na nag quand même mhm. c' est significatif c' est honorable comme ni ko ñëpp di waxee donc mooy am nañu gëm li ñu doon woote Hmm. Ah, ba tax na bon c'est vrai on a été un peu bi ñu gañewul mais nag terewul ay woy gëm lañ ñu gëm ne kon dafa jotagul wala dafa gënul si ñun wala gënul si dëkk bi te dañ ko doon ñaan itam su fekkee gënul si ñun wala gënul si askan bi ah yàlla bu ñu ko yàlla jox ah peut-être loolu la yàlla dégg comme que gënagul si ñun wala gënagul si askan bi wala ñun mérité guñ ko wala askan bi mérité gu ko benn moo si am donc peut-être moo tax joxuñu ko mais ñi mu leen jox yàlla na leen jikk mhm. ñu ngi si di leen jàppale lu ñu mën en tout cas pour liggéey bi ci jëm kanam mhm. ngeen am ñeenti conseiller ville mhm. trois conseillers est trois conseillers ouest six conseillers nord mën nañ wax un score honorable voilà effectivement score la boo xam ne ñu si gërëm suñu borom d'abord mais di si gërëm les Rufisquois et même les sympathisants yi dëkkuloon Rufisque di oote sax Rufisque di wax nit ñi voté leen ñi ñu nekkoon nag si benn coalition. Mhm. parce que man mii dama jiite benn plateforme bu ñu wax alliance nationale pour un développement durable et responsable ñu àndoon ak euh, benn plateforme bu ñuy wax union citoyenne bunt bi. Mhm. union citoyenne bunt bi lu ko waral parce que dafa soxla woon en tout cas ñu dem élection et pour y aller il fallait trouver en tout cas foo ko mun jaar. alors foofu lañ ko mënoon jaar gannaaw bi ñu waxtaanee ak plateforme yu bëri moo tax ñu dem euh, si élection yi ak ñoom yàlla defal ñu nag ñun ñu nekkoon ay alliés si Rufisque Je euh, salue au passage euh, les présidents Aaron Assar, Abdoulaye Diakhaté et François Babacar Touré ñi ma andalon ak yeneen leader nak yo xamné euh, dañu bayyi sen candidature pour ñoo and ak ñun ba tax ñu am résultat yu honorable ñu am à l'est à l'ouest au nord et à la ville de Rufisque. Mmh, mmh. Mmh. donc di wax né en tout cas comme ni nga koy Rifusque a ñëpp dañ ko rafetlu ndax passé des nañ sondage à travers les réseaux sociaux et autres mais tout le monde hein, moi je dirais que tout le monde a apprécié tout le monde nous encourage à poursuivre la politique et ñëpp itam ñu ñuy ñaanal am na ñoo sax après lañ ñu soog Nous xam ne ñoo ñun suñ leen teeloon xam alors jàpp nañ ne daal li ñu lu alors continuer di et aussi euh, pour defar askan bi te ñu bokk ko ñun ñëpp. waaw ah, fi mu ne nii ki ma dégg mooy El Hadj Amadou Samba le politique euh, parce que léegi ci sa biir wax yaa ngi ni. Hmm. da nga taxawal genn kuréel goo xamante ni du parti donc da nga jóge ci kuréel googu daal di taxawal parti avant ou après les élections. waaw loolu c'était bien avant les élections. Hmm. il y a de cela un an et demi. Hmm. la ay Rufisquois ñëwoon seet si ne ma dañ bëgg nga dugg si politique pour nekk candidat à la mairie de la ville de Rufisque defe naa sax su ma nekkul ki njëkk a dépp déclaré candidature am bon gisuma en tout cas keneen avant et loolu bi ma koy déclaré defe naa mooy bi ñu ñëwee seet si ñu ba ñu waxtaan ak ñoom ba d' accord si ne ok nangu naa gannaaw bu ma waxtaanee ak sama famille y compris mes parents et tout que damay dem élection euh, que que dinaa leen jiite si loolu si lañ nag commencé di liggéey donc la planification d' abord Mhm. comment mettre en place une plateforme du montant mako décidé hein. ñun ñëpp ko décider ñun dañuy PENCHO. alors si PENCHO bobu nak lañ d'accord né duñu du un créer mouvement parti lañuy créer. Mhm. alors ce parti nous ko après les déclarations et autres nous nous ko déposé auprès du ministère de l'Intérieur vers le mois de septembre. septembre 2021. donc lolo c'est un peu avant les élections D'ailleurs lolo tax sax ñun mënuñu won dem élection parce que suñu suñu récépissé génnul. Euh, won lan moo génnoon mooy juste déposé nañ mm-hmm. xam nañ ne dépôt mais on attendait voilà donc mais looloo tax ñu jaar ne foog ñu ut ku ñu àndal loolu tam falee ko ñu am ay alliance à risque. Mm-hmm. Euh, ñu commencé di waxtaan ak ñu bëri mais ñi ñu si jubóol mengo woon ak ñoom kàddu mooy ñi ma fi cité tout à l'heure mm-hmm. ah ñu ànd tam ñun ñooñu ñëpp dem waxtaan ak nag ñëpp ñu bëggoon parce que ñu bëri woon nañu ne dañ bëgg ñu ànd aux élections muy les les les plateformes politiques yi nekk si euh, Sénégal euh, ku nekk nak ça dépend si qui ñu contacter parfois c'est pas le sommet mais ay nit ñu contacter mais ñi ñu ci jubóol daal ñu gënon méngoo position bi ñu amone moy euh, ne contre un pouvoir contre une opposition ñun li ñu ñoroon ci élection locale moy mooy lañ dëkk donc tëngëj lañ bëggoon xéxal ci jamono boobu donc té ñun ñëpp donc il fallait qu'on trouve une plateforme qui nous convienne si la ñu union citoyenne buntu bi gannaaw waxtaan bi ñu am ak ñom leur président hein, donc euh, wane ne ah ñoom ils sont dans des dispositions et que kenn du interférer si liggéey keneen ki. maanaam ñun programme bi ñu am Rufisque ñun ñoo ko defaral suñu bopp ñun ñu dëkk Tëngéej même chose lañ doon def Rufisque suñu xaalis bopp la liñ fa doon defee politique suñu mbir bopp la donc coalition mooy on utilise euh, comme on l'appelle ñoom seen këyit. pour mhm. être plus précis. Mhm. pour dem aux élections donc loolu moo indi suñu compagnonnage ak union citoyenne bunt bi ma leen di nuyu tamit di leen gërëm parce qu'ils ont été très élégants très très corrects donc ku nekk respecté na engagement am. en tout cas ci ànd bobu ñu àndoon. naam sax ah score bi wax nañ ko sank ndam li ma sha allah yeen rafetlu ngeen ko bu baax baax waye est ce que du euh Rufisquois yi ñak leen comprendre ci ni ngeen waxee ni vous n'êtes andu leen pouvoir bi manam nekku leen fi nekku leen fi ci dig bi. Hmm. euh terme centrisme boobu est ce que du lolu mo mo manam mo mo ñak leer ci Rufisquois yi bañu bañu bañu bañ leen top waaw lolu bon occasion yi am yeb leral ko leral nañ ko bon parfois sax nit ñi dañu def amalgame. Hmm. man damay liggéey si institution publique. Hmm. bu ñu wax caisse des dépôts et consignations malheureusement suñu dëkk dafa bëri ñoo xam ne lijjanti moo leen dugal fenn ba defe nañ ne kuy liggéey ci institution publique euh, pouvoir nga bokk alors mais contre mon pouvoir c'est ça qui est sincère en moi hein, mhm. ak dara mhm. contre mon opposition maintenant politique bi pouvoir di mëne maanaam ñi jiite am na hein. veut pas dire que j'adhère à tout am na affaire yoo xam ne bis bu ma nekkee si position boo xam ne politique beneen niveau la par exemple législative yi di ñëw. su ma àndul ak ñoom ah dinañ gis critiques yi may am si ñoom li ñuy def. Mhm. opposition pareil kazaalika ku si nekk am na lu ma gis si yow lu ma neex am na lu ma gis si yow lu ma neexul man ak ñi ma àndal ñi ma àndal tam am na ñu gën a favorable l'opposition am ñu gën a favorable le pouvoir. Mhm. alors loolu nag bu amee. waxtaan parce que ñun dañuy oote ay valeur muy penco mooy du ñu jël décision du man maa ñëw rek di leen forcer ay décision dañuy waxtaan et de la discussion jaillit la lumière alors si waxtaan boobu lañ gis ne ñun de li gën ñu taxawee ko mooy ñu nekk ay centriste maanaam ñu ne xam nga mënoon nañ taxaw ne dañ contre diw dañ contre diw. Mhm. ñu ne noo duñ ne dañu contre parce que du contrante ñun li ñuy oote sax d'ailleurs même soo xoolee ñu suivre suñ politique à Rufisque daaw ma wax benn wax bu ñaaw si ñi fa nekkoon maire dama daa wax ne ñoom def nañ li tollook seen mën-mën. à valeur yooyu suñu cosaan am si Sénégal si Afrique nga xam ne yar dafa am solo si askan. et askan bi même boo gañee tey dama leen ko doon wax ne boo gañe woon ñun buñ ñu woon tey dañuy bëgg liggéey ak ñëpp. d'ailleurs c'est ce qui arrive à ceux qui ont gagné. Mhm. ils se rendent compte que munoo defar askan bi te doo liggéey ak ñi si des. donc soo leen defee noonu dès le départ bu ëllëgee boo leen taalalee loxo. mën na am jubóo am wala mbañeel wala ragalante dina ne si biir ñun nag dañuy amoon gis-gis boobu on avait une vision on savait que tôt ou tard lépp loo munti gagné di nga bëgg a liggéey ak d'autant plus que suñu sa réew ni mu nekkee tey bonne maire le conseil municipal ñi nga ah. Ah, donc les têtes de liste souvent <laughs> alors nous, su fekkee ne les si jàmm defe naa euh, na ce qui est arrivé hein, ah, beaucoup de collectivités donc ce qui nous donne raison moo taxoon dès le début à l'entame donc euh, de tout ça ñun suñu wax mooy critique boo dafa constructive dafa positive dañ leen le maire yow par exemple ñoo xam ne la sax ñu baax lañ man bi ma leen commencé fréquenté tuuti maanaam diggante ak ñoom téléphone dama gis ne kenn bonut monsieur le maire Mar. Ah. mais Kazalika. Mm-hmm. monsieur le maire Daouda Niang. Mm-hmm. même chose monsieur le maire euh, Mané même chose donc cause pour laquelle man si sama message yi ma doon joxe c' était pas j' attaquais pas des personnes j' attaquais les approches. je disais que ah mënoon nañ def lu gën lii wala liñ def àdduna dox na ba dépassé lii mën nañ def mieux. mu ngi mel ni koo ne toggal ma rek mu toggal plat boo xam ne ñu bëri bëgguñ ko. Mhm. moom def na lim yaakaaroon mais dama ko naan ah beneen yoon booy togg est ce que doo laaj ñi ëpp si nit ñi lan lañ bëgg. waaw mhm. boobaa di nga ko découragé. Mhm. alors moo tax ñun suñu message boobu nag ñi ko jot a déglu. defe naa ne quatre vingt pour cent ñëw nañ suñu. wala sax kat cent pour cent. ñi ko jotul dégg nag wala ñi nga xam ne dégguñ ko mu leer seen bopp peut-être ñun aussi on est une jeune plateforme. di sant yàlla si résultat yi ñam mais on n'avait part tous les moyens parce que sooy démarrer plateforme bel noonu mais askan bi ñii di ñëw ñëpp amuñu moyen et même yow boo amee moyen bon moyen du rek xaalis. foog am yeneen nit ñuy dugg si ruq-ruqaat yi alors parti boo xam ne def na trente ans par exemple ah Rufisque yanaaw ay parti yoo xam ne trente ans ñu fa mhm. ñooñu ñooy gën mooy gën a yomb si ñoom peut-être de faire passer leur message pour différent raisons ñun nag on a utilisé différents canaux comme les réseaux sociaux. ak médias yi nga xam ne tëddee nañ njaaxaanaay parce que nag ñun tam gis nañ ci média yi ñoo xam ne <laughs> man gis naa ne tëddee wu njaaxaanaay ma leen di féliciter au passage. Mm. parce que li ngeen di def nii réew mu mel noonu lañ bëgg mooy ku ne jouer partition. Mm. mais am na ñoo xam ne man j'ai vu que honnêtement ils ont invité des personnes moi je sais man ma ñëw ci seen média. Mm. parce que lu ma doon wax peut-être arrangé boo nekkee média am nga droit yow ma fay liggéey far la neex. Mm-hmm. mais nag en tant que média mais mm-hmm. taalal la ñoom micro rek. njaaxanaay donc yooyu yëpp joué na si. ba am fu ñu am accès am fu ñu amul accès te dëkk bi dafa rëy mais fi ñu jot dem yëpp en tout cas ñi si ëpp ñu ñu ñëw nañu ak tam peut-être mën na tax ma euh, analyse bi ñu def si suñu plateforme ñu gis ne am na zone yoo xam ne looloo tax peut-être gagné ko. Mm-hmm. mais jàpp nañ ne suñu continuer suñu liggéey askan bi ñu leen di gën a sensibiliser dinañ ñëw si ñun euh, si tëj si point boobu souvent. souvent sama discours manam buma don joxe message contrairement à beaucoup de politiciens du ñëw rek taxaw ci kanam askan bi ne woy da ngeen may jappalé ma jappalé hmm. le minimum de temps buma don def c'est une heure de temps. pourquoi parce que défar Rufisque. c'est tellement complexe qu'il fallait expliquer au Rufisquois yi nga xamné yag nañ gis politiciens yu len di nax. Hmm. nan nga ko bëgg jaar et lu tax mën na nek parce que nit di nga ñëw wax ko dara dama ci joxe exemple bu ndaw. président bi fi nekkoon avant président bi fi nekk bi mu njëkkee wax dañu déplacer aéroport nit ñi dañ doon rek. <laughs> donc su bëggoon expliquer li ñu war a def yëpp pour déplacer ko mais loolu voyé dafay jël temps. Hmm. mais imagine Rufisque na nga xam ne dëkk entier la am na domaine yëpp au delà des domaines de compétences transférés aux maire. tous les autres domaines bu ne nga war a expliquer nit ñi lan moo tax am nga ay fexe yaak ñi nga àndal pour changer ko ndax nit la yoo xam ne dañu xaw a sceptique. donc loolu moo doon tax suñu explication di jël temps ndax maa ngi fàttali bi may démarrer benn point laa njëkk commencé wax rek lac artificiel. mais la plupart des gens dañoo nous kii li wax nii mënul nekk. Mhm. mais c'est parce que ñoom xamuñu ne àdduna bi ñu toll. ñi yor moyen maanaam xaalis dañuy financer lu ñu wax avec euh, la finance verte ay projets yu dem dans le domaine de l'environnement et du développement durable et responsable alors genre projet yi mën na doon amorce. maanaam mën nga amorcer projet boo xam ne mhm. c'est pour wone ak xaj ci xaalis pour won d'abord askan bi ne am na possibilité indi xaalis luy jur njëriñ si benn domaine pour que yeneen bailleurs yi après ñëw et c' un moyen d'approcher un bailleur bu complexe muy le Fonds vert climat té koku su nango jappal na yenen bailleur yi. ñoy gëna neex indi parce que koku si bailleur bobu si bailleur yi gëna a compliqué seen procédure la bokk donc yoy yëpp boo ko naree expliquer askan mo da indi nag nga jël une heure de temps. di toj. léna lool soko na ré def teungay yeb bokkul la ki nga xamné day dem fenn au musique bi ñu teug wax ñaari affaire gaay yi mu bayyi fa dara dem <laughs> koku mo lay ëpp ñu mu atteindre. Mhm. mais yow yaay gëna yéx mais ce qu'on appelle avancer lentement. mais sûrement. moo tax on a un électorat macha allah de qualité. mooy ñoo xam ne soo defaatoon élection yi gëm na ne dinañu votel ndax ñun joxuñu leen xaalis gëruñu leen. ok yaa ngi ko doon wax euh, sànq ah, ni programme effectivement donc njëkkee. Hmm. daanaka ñu ci bari ren moom gis nañ ni programme bari hmm. mais ci ni nga expliqué nii yëpp ni même pour jàlloon sa message tu as dit minimum gën ngaa néew daa nga def waxtu ngir expliquer leen. Hmm. mu mel am ñoo xam ne day nekk quelque très très très très ci ñoom. kon est-ce que mën nañ ci tënk ni du programme moo tax ñu fal candidat yi alors. waaw jàpp naa ne peut ñàkkul foo xam ne candidat yi programme tax mais bëri na pro candidat yoo xam ne man lecture bi ma si def man ak ñi ma àndal mooy du programme parce que il arrive parfois que nga gis euh, si dëkk bi euh, rappeurs yi nag foofu laa leen di gërëmee. Ah ils sont très visionnaires. Ah, dañu wax Sénégal folli lañ gën a mun fal. Mhm. d'ailleurs may nuyu ñu nekk si suñ plateforme yëpp ay rappeurs yoo xam ne ils n'ont pas hésité hésité à s'afficher avec nous pour dire que ñun la ñu ok te joxuñ leen dara yàlla xam na ne am nañu mhm. mosuma leen jox un franc. Mhm. donc loolu dafay wane ne am nañ gëm-gëm. alors kenn ki sama may yónnee clipam c'est presque trois ou quatre jours avant les élections boo xam ne da si wax folli moom lañ gën a mun fal mais ils ont raison donc ça veut dire que ñoom seen problème lecture de la société sénégalaise. da ngay gis ñu ne diw neexatuñu na fi jóge. <laughs> comme ça radical ba pare voilà radical wala parfois yóbbaale ma dafa yomb si sénégalais. <laughs> mbooloo mi fii la ne xumb na neex na ñëpp fa lañ ne nga dem dugg fa mais au fond suñ la laajoon bëri na ñu ñu fal nga laaj leen gars yi ne xamuñu kan lañ fal alors loolu tamit qu'on le veuille ou non on a fi dindi ay nit mais waroon nañ déglu ñu indi ay programme mieux programme yu laaj leen nan nga koy mettre en œuvre. donc mhm. loolu dafa am solo. ok si si si si politique programme yooyu dinañ ci ñëwaat léegi ah. mu di seen émission hashtag news Mouhamed Fatou Ba ci jàppandal bi di ci dalal El Hadji Amadou Samba nekk directeur bu coopération et partenariat ci caisse de dépôt et consignation bu Sénégal nekkoon candidat à la mairie de la ville de Rufisque nekk ba tey président parti bi ñu naan ànd ñu dem pause ñëwaat. hashtag news sur Vibe Radio. The best radio station. Vibe Radio. Hashtag news sur Vibe Radio. The best radio station. Vibe Radio. Vibe rajo téeméer ñaar ju tomb ñett ah, mu di seen émission Hashtag News ba tey rek di ci dalal El Hadj Amadou Samba sànq ñi ngi ñëwoon ci wàllu euh, programme yooyu am na euh, focc euh, yemoon te mën nañ ko àggale yi. waaw may wax ne jërëjëf encore. di nuyuwaat. Mhm. Mhm. programme parce solo moo tax. dafa am solo dëgg la mhm. parce que loolu ñun dafa bokk sax si li ñuy combattre c'est-à-dire au delà de faire de la politique ñun dañ jàpp ne politique sensibilisation daf si am solo. alors euh, comme li ma wax suñu réew nit ñu baax a fi dëkk mais seen problème mooy euh, enjeux yi parfois duñ ko mesurer wala ñu si bëri mesurer wuñ ko souvent ñun ñu nekk si dëkk yu mag yi wala yenn dëkk yi euh, wala yenn station yi sax la wax. Mhm. ni ñuy comprendre yenn mbir yi bokkul ak ki nga xam ne moom amul accès si loolu. xam damay gis sax ñu naan ndaw yi par exemple dañoo war a liggéey ndaw yi bëgguñ liggéey. Mhm. Ah, ay institutions de finance yu mën a financer ñu ngi fi. mais ndaw bu nga xam ne amul accès information boobu munoo ko wax dama liggéey yow mi jàng ba am niveau intellectuel bay ñëw peut-être Ndakaaru wala Kaolack wala Ziguinchor accéder yenn information bokkul ak ndaw bi nga xam ne mu ngi banlieue lu mu passé dem Dakar da ko të kooku lu mu naanee ataay da ko të lu mu ndékkee kooku bon boo koy wax lu tax amoo yenn information parfois c'est pas qu'il veut pas c'est qu'il sait pas ok da ngay gis élève buy jàng nekk étudiant dama si gis mhm. ba si mag ñee tey man procédure bi nit di pour inscrire si une université honnêtement c'est trop long. ok. alors ndëgam étudiant bu jàng ba am bagam da ngay gis ku nekk J'ai par exemple j'ai fii fa lañ ko orienté. Hmm. mais pour moi inscrire elle elle a tellement cherché d'informations et j'ai vu que la procédure est trop longue j'ai rien contre mais je hmm. pense qu'il est temps ñoom un guichet unique C'est simple pour gaaw maintenant c'est la même chose en politique askan bi politicien dana une offre politique ñu tuddee ko programme. alors ce programme là malheureusement temps bi muy laaj pour nga expliquer ko parce que askan bi lu ñuy laaj dafa jafé moy défar dëkk bu doy ni tëngëj par exemple <laughs> dëkk bo xamné 1588 fekk na mo existé traîné ay problème sur plus de 500 ans <laughs> nga ñëw problème bo si jël bu doon entreprise lañ ko denk mu na né entreprise spéciale assainissement tëngëj te waroon nañ mënoon <laughs> entreprise bo créé woon pour assainissement tëngëj mu na né entreprise bu liggéey ah. nga jël santé même chose loo jël noonu waaw dëkk bu mel noonu soo ko bëggee defar te askan bi ne yow lañ nga bëgg nga wax ñu nan nga koy defaree te bëgguñ nga jël temps pour expliquer. Hmm. mais ça ne moo tax ma ne ñun buñ daa expliquer suñ programme pan bu nekk dañ koy jël expliquer te mieux li si gën a compliqué mooy comme ceebu jën la. Hmm. ceebu jën bu la nit ki laajoon lu tax ngay defar ceebu jën ak nan nga koy defaree. doo ñëw jël ñaambi bi kese ne ko damay jël ñaambi bi togg ko à part ñëw teg. Hmm. damay jël euh, ceeb bi kese. tu l'expliques d'abord ceebu jën lu ko indi ndugu bi mhm. lutax nga dem ndugu fi baye fi lutax nga jël jeun yi baye mhm. lutax nga koy roof da mhm. jigen sax xam nañ roof yi xam na nak ñu sant mbay duñu ma reetaan <laughs> ah, roofu chinois ak euh, benen façon roof bi yoyep fo nga expliquer lutax nga bëgg am qualité ci bu, jeun bob lutax nga jël ciof te jëlo benen jën lu tax jëloo pendan di sa hmm. wala nangam hmm. même chose ban façon ceeb ngay jël ceebu mbay mi wala lan bu ne mën nga ko justifier tay nit mën na la damay jël Caroline Caroline du won ceeb bu joggé Sénégal mais pour que ça dépend lan la si jublu ndax askan bi am satisfaction la ci jublu keneen la man ceebu mbay la jël bu Sénégal koku peut-être pour consommer local la si jublu ak santé bi si am parce que ceeb bi amul amit ki gom comme niñ koy waxé hmm. alors ku nekk yoon bi nga jël fo nga toj ko wane tam lutax tax ceebu jën bi doo ko toggee gaz four na nga koy toggee wala four na nga koy toggee wala gaz nga koy toggee parce que da nga respecter l'environnement environnement nak c'est la même chose pour mon programme suma don expliquer Rufisque ay lutax ñu wara classer la vieille ville patrimoine mondial de l'UNESCO fo nga expliquer len ko nga expliquer len lutax la future ville de Rufisque wara nek ci diganté Zac Mbao ak li wër autoroute à péage bi ak perspective de développement yu am ci ginnaw autoroute bi fallait que nga expliquer len ko parce que foofu la mbedd 30 mètres yi ne foofu moo am quartier yu ñu lotissé en demi. soo leen doon expliquer lu tax Lendeng nga bëgg def zone économique spéciale délocaliser fa garage ak euh, marché foog nga expliquer leen alors loolu nag moo doon indi ñi ko jot a déglu ba mu jeex ak tey te beneen bi mooy patience est-ce que seen quoi yi parfois dinañ am patience boobu. parfois duñ ko am sénégalais da ngay wax la sax ngay yegg si. Mhm. gisul lenn lu ko neex ba benn affaire bu ko ah. neexu si rek mu dem yoon. Ah voilà mu ne ak jóg dem yoon. Mhm. donc loolu nak mo indi ñun politique bi njël ñëpp dañu doon wax ñu ci bëri en tout cas seen politique bi mën na dox mais du gaaw ñu leen effectivement. ñun mu jël temps té dox. mo ñu gënal ñu parax parax dugg ci lo xam du dox. donc lool mo indi en tout cas euh, le fait d'avoir des programmes c'était pas facile. programme il faut nga prouver leen mën nga ko mettre en œuvre parce que ça nécessite de l'expertise et de l'argent même lolu ay fem la yo xam faut nga expliquer parce que suñu maire yi amuñu expertise bok mhm. ñu ci bëri. xaalis bi mu laaj amut si suñu collectivité yi donc fan nga koy jëlee donc loolu moo doon indi nag ñi ko jotul déglu comprendre uñ soit ñu ne c'est utopique mënul nekk <laughs> soit ñu ne ah ñii dañuy wax rek mhm. mais ki toog jot déglu la nga am chance mu déglu la souvent moom sax dafa lay bëgg ba day bàyyi dem di indi ji ay nit loolu moo ñu may résultat yi ñu jot am mhm. mais moo tax tamit comme que mënuñ motale fépp peut-être jotuñu gagné ok euh, euh, dañ ci ñëw ci programme yi nga wax. Euh, mm. suivre naa ko déglu naa ko. Mm. yónnee nga ma ci. Mm. xam naa ko te it def naa noonu nga ko defee noonu nga ko defee noonu nga ma ko joxee. noonu nga ko joxe ñeneen ci rawatina ñi nga xamante ne ñoom ñoo falu. nii nii boobaak léegi naam sax ñu door a door day ce que am na xamante ni ñu ngi commencé di def appel du pied maanaam di leen jéema a woo pour ngeen lëkkaloo baaxe leen ci yenn ci ay programme yoo xam ne xëy na bokk ngeen ko waaye mel na ni yéen yéen leen ci maanaam daal yéen a ci gën a avancé. ci côté liggéey ak ci côté waaw muy si Tëngéej wala hors de Rufisque am na se ñu ñu manifester. ok ñun manifester lañ suñu yéene jàpp si liggéey bi ñoom tam manifester nañ seen yéene ñu ànd liggéey. Mhm. donc y compris le le docteur Omar Cissé. maire de la ville de Rufisque. donc ñu koy rafetlu. alors pour l'instant nag defe na bon temps bi mayagu leen ñu. ñu dugg ci détail voilà c'est juste euh, peut-être les balbutiements. Mhm. d'une probable collaboration. pour defar suñu dëkk. am tam ñu dëkkul Tëngéej ay maire yu gagné seen gox ba pare. man personnellement ñu saisir ma wala par personne interposée. ñu mhm. saisir ma ne suñu sañoon ñu gunge leen ci seen liggéey. alors euh, si sama liguey nak bu may liggéey caisse de dépôt bon peut-être comme que ñoom office fi caisse de dépôt duma mën mun détailler mhm. mais on travaille des collectivités moi même je suis le directeur du développement territorial mhm. donc ah am na luñ si xam donc liñ ci xam ak liñ ci mën en tant que sénégalais waxuma en tant que quoi sax mais en tant que sénégalais en tant que africain bon kuñu ñu si woo si lu tolloog suñu xam-xam suñu mën-mën ak suñu relation ah, dinañ ci jéem luñu mën dëkk bu mu ti doon pour mu jur njëriñ si suñu askan yi. Mhm. alors euh, comme je dis loolu daal lañ si tolloogu muy ay échange yoo xam ne peut-être c'est juste euh, cette volonté. de pouvoir faire des choses ensemble. du ma fi euh, dalal Rufisquois du ma ko du ma ko wax ci li nga xamante ni gën na soxal nit ñi ndax te te ngeen léegi dafa demee nee te dara warul ko dul avancée de la mer. Mhm. am ngeen ci pexeem. waaw si suñ programme amoon nañ si programme bu yaatu sax du ma wax sax projet mais programme je parlais souvent de la façade atlantique. Mhm alors li may wax toujours programme wala projet yi di saafara yenn mbir euh, du lu ñuy luxus rek ñëw teg ko <laughs> dañ koy planifier commencer ko mettre en œuvre <laughs> topp ko ba mu yegg pour que à long terme mu am njeexital si askan bi euh, sept mille mètres de plage yi ko am loolu boo ko bëggee defar defoon nañ fa ay xeer boobu ñun peut-être sax juddooguñ loolu mais xeer yooyu tey par des effets qui sont connus hein, par les océanographes donc suuf si mu ngi jóge si suufu xeer yi xeer yi di wàcc ndànk-ndànk. Ah. géej di avance conjugué à l' de la mer qui est liée au changement climatique en grande partie donc géej gi mbar yi dañuy gën a am doole et cetera et phénomènes que les océanographes pourront expliquer pour ne pas faire de cours euh, mm-hmm. scientifiques. Mm-hmm. alors loolu bi ñu ko gisee ñun ñun dañ ne façade atlantique D'abord, d' abord dañ ko valoriser. valoriser nekku rek teg fa ay xeer mais dañu fa war a ut ay projet mais pas projet yoo xam ne intérêt kii la wala kële wala benn projet kese projet yi ñu fa mun def mooy étudier toute la façade de Bata à Cap mhm. def loo xam ne da nga siy profité faire d'une pierre deux coups mooy valorisation boobu nga fay def nga xam ne day am ay zone commerciale day am zone touristique day am euh, euh, zone sportive mais infrastructure yañ fa war a def nga sóoraale si nan lañ koy defaree ba géej gi dootul dugg ci dëkk bi. technique yi am bari na soit nga tabax mu gën a koy mais boobaa nit ñi duñ gisati géej gi. Hmm. wala ñu dragué booru géej gi yenn parti yi mu gën a xóot pour mbari ti yéeg ba si kaw. Hmm. mais tam infrastructure yañ fay tabax protéger waale dëkk bi. loolu dafa laaj étude des parties prenantes maanaam ñi mu soxal ñëpp nga waxtaan seeg ñoom collectivité lébu bi ña fa ami kër ña fa dëkk waa Tëngéej ña dem di sport ña dem di napp pour ku ne am gisaate boppam alors moo tax ma ne programme yu mel noonu du liggéey bu simple ñun boobu la comme offre pour protéger un l'avancée de la mer et ce serait un projet bailleur moy du ben bailleur moy ñëw rek ben partenaire rek financer lépp ki day ñëw ne man de ay centres commerciaux la bëgg tabax koku partenaire privé peut-être lay doon ngeen négocier partenariat public privé hmm. am ñu bëgg tabax hôtel c'est possible am ñuy financer euh, li nga xam ne protection donc avancée de la mer si dëkk yenn ñu peut-être loolu la ñuy financer hmm. am ñoom la ñuy financer moy euh, lu jëm si sport ñooñu peut-être les infrastructures sportives et cetera et cetera donc conception bi amoon ci programme boobu mooy c'est un projet très ambitieux mais dëkk nag man mënuma gis ñu am dëkk yu doy ni Tëngéej nga xam ne presque cinq cent mille habitants ben dëkk boobu nga koy indi ay solution yu ndaw. ndax du durable. donc moo taxoon ñu indi ay programme yoo xam ne c'est structurant. yu tolloog dëkk bi waaw yu tolloog dëkk bi. du tam loo xam ne ñun dañu ñëw def ko rek mu jeex tey soo xoolee ba si suñu réew. programme yu mag yi fi am président yi dañuy ñëw. ñu ko fi hmm. commencé. par exemple autoroute à péage. le président Abdoulaye Wade moo ko fi commencé. président Macky Sall ñëw di def ay autoroute hmm. mais keneen dina ñëw def leneen. Hmm. Euh, terre bi ngay bi ñuy wax. président bi indi na terre. mais peut-être keneen su ñëwee dina defaat. terre wala mu indi. leneen ah tramway. on ne sait jamais wala ay métro on va essayer peut-être ki koy njëkk def tam. <laughs> dina def innovation keneen ñëw ba Sénégal di yegg fi réew yi développé yegg. ndax loolu lañ ko yéene loolu gëm nañ ni mun a nekk ndax ressources yi suñu réew am muy ressource humaine muy ressource muy lépp stabilité car macha allah réew mi dafa war a développé wu warul yem sax si émergence dafa war a développé wu mais suqale ko ba faw gëm-gëm ah daanaka noonu lañ ko mën a dippee ñu jóge ci ay local monsieur Samba hmm. jëm ci législative maanaam ndax délai bi ndax raisonnable na waaw délai la boo xam ne pour ñi mosul peut-être dem législative <laughs> dina metti si ñoom mais ñi nga xam ne mos nañ dem peut-être su ma ne dem waxuma nit ñi mais plateforme politique yi bon je pense que lu muy tax mooy dina tax plateforme politique yi ñooy dem peut-être ay alliance mooy am. Mm. Euh, les pôles existants en tout cas bi ñu nekkoon muy union citoyenne bunt bi. Mm. fas na yéen a dem donc euh, euh, defe naa yeew yi fas na yéen a dem. même chose aussi euh, euh, Benno face na yéene dem ak peut-être ñenen alors euh, délai bi li tax mu court li mu court li les gens n'auront pas trop de temps pour def li ah. le parrainage. voilà le parrainage déjà format document ñuy parrainer. Hmm. su génnul nit ñi même buñ dajalé information ils seront obligés de faire le travail deux fois. Hmm, hmm. Moi, peut-être nga les ay carte d'identité mais après nga wëraat remplir pour ñu signer. donc muy ben. ñaar délai bu ndaw bobu lu muy def moy dina pousser tamit nit ñi ñu dem dans des alliances pour que mu baña a peut-être ay candidature individuelle wala bon pas individuelle mais en tout cas ay ben parti bu dem mom kasse bon lolu tam amna fu muy bax dina tax ñom ay groupe parlementaire yu mak ok voilà mais dal lu si mënti am moy personnellement en tout cas euh, ñi ñu wër yépp sans exception benn nit kese moo ne woon bul dem législative sur des centaines et des centaines de personnes. et moom si boppam bi mu dégluwaatee ñeneen ñi parce ñun dañuy pencoo moom si boppam dañ effectivement nañ dem donc dem boobu nag pour lan pour nekk candidat ànd si benn alliance. deuxièmement euh, ñu war a xoolaat nag député peut-être loolu tam dinañ ci ñëw. Mm-hmm. opportunité bi ngeen jox na tax ma tënk ko. Mm-hmm. député ni mu war a taxawee si jamono tey jii dafa war a changer c'est vrai nak amna député yo xamné ay modèle lañ mais on peut même encore mieux faire pourquoi parce que ni suñu assemblée di doxé mën na évoluer muy le par parlement de manière générale muy assemblée ak euh, sénat yëpp. Hmm. deuxièmement rôle bi député wara am député waratul nek ko xamné euh di nga tok assemblée di cas mais da nga wara a proche euh, population ba paré ñu bari nak dañ koy faté hmm. même bu la ben département fare député dafa national maanaam député c'est pas parce que Tëngéej mo la far wala feneen que fofu da nga wara défendre territoire national bi yëpp sa mbir sa yoon alors donc fo nga accessible pour citoyen yi la jot. lool nak parce que dañ wax ndawal rew bi voilà lool nak motax technologie yu bees ñu war ko profito utiliser ko muy les réseaux sociaux parce que munoo chaque jour ngay jël nit ñi ñëw di la seet du ñak mais meilleure méthode muy exploiter les réseaux sociaux motax tay député ñu war a am dañu war a xarañ nag. wala ñi leen wër tamit xarañ. <laughs> pour lan parce que foog ñu méngoog jamono. pour que mm. tey ku la bëgg a jot dina xam fu muy jaar li ngay jot ci message am ay équipe yu ko mun dégrossir voilà pour que yow nga mun porter ces questions là et de manière stratégique yenn questions yi auprès de l'Assemblée nationale et aussi beneen bi mooy le contrôle de l'action gouvernementale loolu tam rôle député la alors contrôle action gouvernementale tam jàpp naa ne euh, ñu ngi koy def ah, parce que assemblée chaque fois gars nañ fa dem présenter. mais warna na am ay mécanisme tout à l'heure junj ko buñu wax ci fase yu bari mhm. mécanisme de gestion des plaintes bo xamné man de tay buma nekkon député amna yo xamné je vais plaider en plaider en faveur de cela moy ñu innover d'abord ba paré moderniser suñu yenn institution waxuma nak liggéeyuñ mais mën nañ gën liggéey deuxièmement ñu plaider en faveur de yeneen projet yu mel ni comme li wax ay mécanisme de gestion des plaintes boo xam ne day yegg ba si assemblée bi. ndax am na fi question yoo xam ne sensible na sensible boo xam ne. Hmm. mun na taalum réew. bëgguma si cité benn. Hmm. mais yooyu tey war na am ñu sage si réew mi ñu sage si assemblée bi ñu boole leen pour que le mécanisme de gestion des plaintes day yegg ba si ñooñu parce que nag bëgg a àtte nit ñu yegg benn niveau bi bon suñ si demeewul xel. du baax quel que soit li mun ti am waxuma nag bëgguma tudd benn tur. du hmm. benn parti nag parce que sama xel parti bu na ñëw na si tur bu mais c'est une manière de régler en tout cas ou de désamorcer yenn situation bu boobaa même boo àttee àtte bi dina leer ba kenn du mere la nga jël comme décision mais sinon suñu réew yegg na foo xam ne am na yoom ne boo quelle que soit la décision kenn du xam sax fu dëgg féete parfois da ngay sonn sax pour mm-hmm. retrouver mm-hmm. donc euh, loolu daal mooy li nga xam ne mm-hmm. muy législative yi ñu jël comme li nga wax si délai bi bon délai bi jàpp naa nag seere na mais aussi suñ ko defut Euh, on respectera plus le calendrier. et mieux bu boobaa présidentiel yi di ñëwaat tamit. <laughs> dañ leneen mën na si am beneen impact mu juraat yeneen. vraiment liggéey lañ laaj fi ne nii quoi absolument euh, bu baax ci rôle ci maanaam ci ci ndawal réew yi. Mhm. wax ci rôle député ba ne sax doo ko tudd may am na ci député yoo xam ne ñuy def seen liggéey bu baax baax mais euh, ak majorité bi ñuy faral di am ci penc ma monsieur Samba. Mhm. yaakaar nga ni rôle député dina mën a feeñ. waaw moo tax ma ne dañu war a innover moderniser suñu assemblée yi. est dina yomb ñun dañoo copier non yombul. moo tax xam nga mm-hmm. laaj nga ma ko léegi si local yi ma ne ñun dañ bokk si ñu gëm ne boo bëggee changer dara da nga war a am référence. Mm-hmm. référence ñun yi ñu am man personnellement damay nekk xale à 11 ans laa am ay prix sur l'apartheid sur le programme et la yu mel ni ñoom. pour ne pas revenir sur tous les prix. Mm-hmm. mais c'est une manière de dire que sama référence Mandela la woon te boobu 11 ans la am. Mm. Mandela dañ ko tëj lu yàgg. su ko fa muñul woon c'est un avocat hein. mënoon na ne man coono gi jaru ko. c'est vrai c'est un paradigme boo xam ne ou un bu ñuy dund au Sénégal c'est-à-dire yow li ngay sacrifier ci sa famille du sa famille yëpp a koy comprendre am na ñoom dañuy jàpp ne yow da nga dafa am ñoom soo leen la siy mere. <laughs> Ah, tout ce que tu ak tout bi nga nar a daj pour lan. waaw ah, mais loolu c'est parce que yàlla moo bind yenn nit ñoom ñu jàpp ne ñoom ñëwuñu fi pour seen bopp kese. Mm-hmm. c'est vrai nit ku nekk nag sama bopp ma la gënal du bañ naa la mais n'empêche. lan nga war a defar sa ah ñun si milieu bi ma yaree man en tout cas loolu laa fa fekk si papa si yaay si ay maam si ay nijaay donc cause pour laquelle ñun ñu jàpp ne dañu am lu ñu war a defal askan bi lan nga mun defal askan bi contrairement tam li bëri si askan bi foog mooy ñëw di leen jox xaalis mhm. non may nit jën dimbali woo jàngal ko napp alors jàngal napp bi nag jàngal napp yombut soo bëggee muy napp ay ngan di jën <laughs> non di ngeen ànd géej di ngeen dugg géej gi sàmbaraax parfois sax mu bëgg la nga sauver ko wala mu sauver la voyez ça prend du temps même chose suñu réew foog askan bi si boppam ñun tam ñu ànd ak ñoom comme niñ ko defee bi ñu nekkee ndaw ba léegi muy gis ne model yooyu ñoom dafa am lu ñu muñ diine yi ñu gëm parce que ma jàpp ne Sénégal xaw ma lu tax ñu lay sax mais est-ce que waruñu ut beneen terme bu gën a adapté waxuma ñu nekk république islamique wala république chrétienne wala lu ñu neex. Mm-hmm. mais mën nañ nekk république boo xam ne mais dañoo gëm. xaw ma ndax terme boobu waruñ ko innover mm-hmm. pourquoi ñu bëgg a rester rek si terme yi suñu maam yi créé woon. suñu maam est-ce que dañoo copier les premiers hommes li ñu doon def. <laughs> mais ñoom dañu créer dara mais ñun nañ créer benn mm-hmm. système boo xam ne. religion révélée yi lañ fi reconnaître. par exemple religion révélée yooyu lu tax man ma si wax c'est am nañ référence. référence bi mooy ay nit ñoo xam ne ah si niñ leen présenté ak niñ leen gëmee muy les prophètes ou autres mais jikko yu rafet lañ yoroon ndax jikko yi lañ tànn tànnee prophètes yëpp du du seen famille kese alors loolu lan moo tax ma dugal ko si si si si si si si si question bi nii waaw c'est pour dire que pour ñu am li ñu bëgg foog ñu am référence moo tax pour ñu yegg fi ñu bëgg a jëm pour changer suñu assemblée yi foog ñu am lu ñuy inspire li ñuy inspiré mooy ñu planifier changement comme ñun ni ñu ko defee gëm ne suñu assemblée nationale war na changer nu muy doxee changement boobu mooy indi par exemple nga mën si dugal mécanisme de gestion des plaintes ay groupe parlementaire lu tax mu war a am man dama bokk si ñoo xam ne xam naa ne du neex dindi mais à long terme est ce que mënuñ tuddee ay député du peuple parce que notion de groupe boobu mooy indi nga jàpp ne dama am appartenance mais ku jàng management <laughs> d' on a mis dañ teg li nga xam ne mooy tax problème dafa nar am alors pour éviter problème yooyu est-ce que waruñu woon ne assemblée amatul groupe parlementaire. c'est une assemblée nationale point. ku ñu xas ba fal. fal député nga. soo fi indee loi président bi dañ koy voté. Hmm. dañuy waxtaan rek voté. loolu dina gën a délier député yi parce que boo bokkee ci benn groupe di nga gis ne peut soo deful yenn yi mën a indil problème mais loolu dina pousse tam bu boobaa ñi ñuy jiite ñëpp. nga xam ne nekkatoo si régime boo xam ne da nga am doole yow kese am nga doole nag foog ñu am lu la may pour nga mun liggéey mais aussi euh, du lu la neex nga def donc moo tax ma ne changement yooyu initier ko peut-être olof nag day wax di nga xeeb xal mu lakk sa dàgga nga xeeb xañ ci mu takk sa say. <laughs> ah xamuñ ndax ñun la wala keneen la. Mhm. mais dañ bokk suñu gëm ne boo amee loo gëm te mu leer sa bopp. Mhm. mais défendre ko peut-être que yow la yàlla indi pour nga changer ko peut-être du yow. Mhm. mais au moins le fait que nga koy wax tôt ou tard peut-être le combat la dina prendre comme ni ñu ko defee risque ba ñëpp di wax programme peut-être li ñu wax nii. Hmm. d'ici quelques mois peut-être ñu bëgg a nekk député bi commencé ko wax. Hmm. naan wéy lii warul am lay warul am. mais en ñun noonu lañ ko gisee. mooy du yomb waaye lu ñu war a porté la. lu ñu war a porté sànq ni nga ko waxee ku amul référence maanaam ku amul wéeru waaye da neex ba ma. absolument waaye tëkkuñu ba ma nga daal di daanu. ba tey ci législative euh, hmm. yow bokk nga ci coalition te da ngeen dem ci kàttanu borom bi ah. euh, caution bi aussi wax nañ ci 15 millions parce que tout le temps euh, caution day faral ñu booy xool yi ñu genn local yi nga xam mom lañ genn sax problème caution yi génnoon genn non na bii mu daal ñëw mais dañ ko teel a vidé ben réunion presque lañ ci def ah Mohamed amul ben problème ben réunion lañ ci def 15 millions 15 millions c'est bon mm-hmm. waaw japp naa ne ëppul ndawul donc mënoon na gën a ndaw mais bon je pense que comme que moom la ñëpp en tout cas li ñu wax loolu lañ décidé mm-hmm. bon on se conforme aussi te bi yoon bariwul coow bariwul coow benn yoon lañ parce que voilà comme que comme ko sax bi pas ay coalition lañ ko laaj. Mhm. bon même bu dee nag coalition yenn yi bëggoon nañ ñu wàññi ko ñu ëpp dégg naa si opposition bi mooy ñu def ko 5 millions. Mhm. ils ont raison mais aussi. Euh, euh, ñi ñi fixé 15 millions aussi man à mon sens euh, loolu warul doon problème. parce que coalition de parti pour ñu am 15 millions war na mu nekk. poser problème voilà du poser problème ñu waxit ci leneen ci législative bi laata ñu dugg ci yenn xew-xew yi nga xam ne moo ci gën a fës. mu di wàllu parrainage ah mm. parrainage amoon na fii buy bàyyi woon na coow mm. bi ñëwati na ñu am lu ñu leen laaj ah ci ñi nga xamante ni moo di ñu nekk ci wayandiru mbindu gi maanaam ci fichier général des électeurs mm. gën ngaa néew faw ngeen am fanweer ak ñeenti junni yu teg juróomi téeméer ak euh, juróom fukki électeur gën ngaa bëri juróom fukk ak juróomi junni yu teg ñeenti téeméer ak ñaar fukk ak juróom ñaari électeur te it ne ñu faw ngeen am ay signature yoo xamante ni ay ñi ngi nekk ci diwaan yi ci juróom-ñaari diwaan gën ngaa néew junni Eh, ndax dina yomb mbir mi. ci niñ ko waaw euh, loolu yëpp yombul mais bon bu fekkee aussi coalition yi installé au niveau national je pense que war nañ ko mën. man jàpp naa ne coalition yi ñëw sama xel na ah, xaw ma ñoom ñooy présenté mhm. bon ñoom ñëpp war nañ ko mën am. mais nag du yomb euh, ñi muy gën a jafe nag mooy ñi nga xam ne peut-être ñu ngi doog a ñëw si. Mhm. langue bi comme li ñuy wax blé. waaw blé pourquoi parce que li nit ñi di ooy appareil. souvent moom lañ dul teel c'est-à-dire euh, appareil mooy lan mooy nga am fépp ay instances yu huilées.

alors oui tamit ce sera pareil il faut que ces bleus là comme nous l'entendons, dit, mhm. démontrent leur euh, capacité à s'adapter mais à long terme nous devons améliorer ce politique pour que mu bañati nécessité euh, autant de de choses pour aller aux élections mais bien sûr nous devons défendre le wax comme nous mënul am parrainage mooy waroo nous gagner mhm. mais aussi est-ce qu'on peut moderniser aussi digitaliser nous avons des passeports numériques. Mhm. nous avons des cartes d'identité numériques. Mm-hmm. mais lan moo tere ñu mën a ut système boo xam ne ku pare ne jeex na mënatoo pare ne keneen. Ah. man loolu laa gën a gis. parce que tey lii voilà moo gën a wóor. tey c'est très difficile nga départager diw pare ne ñaari. effectivement effectivement voilà bu ñu imiter signature am kii a mm-hmm. raison. kenn xamul kenn xamul donc ñu daal yow ngay bëgg. voilà il faut ñu avancer. <laughs> waaw ñu gaaw nee nañ ma li ñu ci waxtu bariwul mais waxtaan bi dafa ah, dugg ci li xew ci ay bés bi na ci moo di tekk ndomo tànk bi ñu tekkoon ndomo tànk Papa Amadou Sarr bu DER bi nga déggee xibaar bi la mu wax euh, maanaam décret beeg lépp naka nga ko jàngatee Amadou. waaw bon comme que ñu tekki ndombal tànkam leeraluñ peut-être li tax ñu tekki ndombal tànkam dina jafe ma wax ne lii moo tax wala lee mais nag bon comme ñun ñëpp fii lañ dëkk Euh, si li ñu dégg démb laay ñibbi sama oto rek dégg ko. Hmm. bon comme que nit la koo xam ne tamit siiw na si réew mi moom hmm. tamit. Euh, bu ñu tekkee ndombal tànkam moo tax ñëpp di ko yëg. Euh, jàngat bi rek mooy comme que ki ko faloon moo ko folli. Hmm. ah moo ko fa jëlee bokk du ma wax sax folli. bon nañ xam ne rek ñi nga xam ne yëpp ay décret leen fal kenn amu fi nguur gu dul jeex loolu lañ si war a jàngat deuxième bi mooy li ñu ko ñenn ñi ne moo tax ñu folli ko bon dégg naa ne jéggalu na bon ñu koy rafetlu aussi bu dee jéggalu na dina tax tamit ñu xam ne il faut tourner aussi mille fois la langue dans la bouche avant de parler ndax kilifa diine yi dafa bëri ñu yàgg si réew tugal yi euh, bu ñu nee rek ñu ne kilifa diine yi kilifa diine yëpp nag yemuñu nag. <laughs> Euh, quelques nit yu ooyee seen bopp kilifa diine bu ñu def erreur ba tax ñaata pour cent lañu représenté sax ñooñu. bëri mm-hmm. mais bu dee loolu nañ ne askan bi yëpp a bon. askan am na façon bu ne. Mm. mais tax nga naa askan bi ñëpp a yow mii di wax sa bopp jàppoo da nga bon moo tax ngay critiquer ñu bon donc loolu daal li ma si jàngat mooy ah euh, comme que jéggalu na moom nañ ko jéggal na mm-hmm. waaw jàpp ne juum na mais itam kii ko faloon peut-être tamit loolu taxul mu jëlee ko fi ah wala mun na am tam loolu moo tax mm-hmm. voilà loolu moom li ma si tënk rek mooy man sama gis-gis mooy dina jàngal ñu bëri bu ñuy waxati te nekk homme public. Hmm. xool li ñu wax xool bu baax li ñu wax beneen nit boo xamante ni ñëpp ñu ko doon xaar ndax mbas mi daanaka wàññeeku na namm nañ ko. Hmm. parate yeeg ñoom seen fête avril du mujj am prise d'armes am ndax liggéeyu BRT. waaw bon. loolu aussi defe naa na namoon nañ ko moom <laughs> waaw na namoon nañ suñu soldat si ah. <laughs> <laughs> voilà defe naa 4 avril dafa dem ba nekk euh, fête si sénégalais yi parce que euh, booy nekk xale nga koy commencé gis te xam nga uniforme dafa rafet mhm. euh, surtout ñuy match comme niñ koy waxee maaju àndandoo donc ce qui fait que buñ ko amul daf ñuy manqué mhm. mais bon comme que ñi ko jiite ñoom loolu lañ décidé mhm. ah ñu nangul leen ko rek peut-être ñu concentré wu si leneen et je pense que nag euh, ñu ngi si jamono boobu war nañ gën concentré en tout cas si suñu réew. si mhm. contexte bi àdduna tool mhm. muy contexte bu compliqué. Mhm. bu am sax guerre boo xam ne. justement ci la ñuy def ñëpp a ngi koy gis muy Ukraine. muy une guerre très stratégique. guerre boo xam ne man dama jàpp ne sama gis-gis bu ndaw. Euh, mun na changer bu de choses dans le monde. et ah. commencé na ko changer parce que qui a raison ou qui a tort peut-être je me prononce, mhm. mais qu'on le veuille ou non cette guerre là démarrée quelque part en Europe. Mhm. aura beaucoup d'impact même sur les décisions au niveau international va mettre à nu des carences. Mhm. voilà priorité yi mu ngi changé am à sax réew yu ne dañuy ay dañuy budget de défense. ben euh, bataille médiatique bi kan moo am raison kan moi tort ku nekk da ngay mais pour moi, pour ça, juger c'est difficile. su Amérique taqalee Russie wala OTAN taqal ko moom tam mu ne yéen financé ay armes bactériologiques finalement qui a raison. on ne loolu nag man li ma si jàngat mooy ñun jot na Afrique Sénégal ak yëpp yenn terrain yi ñu jàpp ne dañ ko war a bàyyee ñëpp nañ si commencé investir d' ailleurs bind naa si sax ay quelques postes si yenn médias sociaux. macha allah euh, am na réew yu ko am fi Afrique. Hmm. mais jot na suñu réew yi commencé am ay satellite pour indépendant côté télécommunication parce que c' est très important. jot na stratégie militaire. ñun suñu réew yi bëri amuñ fi yenn doole yi mais est-ce que waruñu booloo euh, au niveau africain aussi gën a fédérer suñuy force pour des raisons très stratégiques ndax li am Ukraine terewul un jour benn puissance bu xëyoon dugg si benn si suñu réew yi nii jël ko qu'en adviendra-t-il ah. qui va venir défendre parce que gis nañ Ukraine mu ngi laaj ay armes wala ay avions mais hmm. gars yi pour respect de tel texte ou autre mënuñ ko jox wala nanguwuñ ko jox hmm. alors loolu yëpp daal ñun lan lañ si mën a jàngee ñun fii hmm. mooy jot na ñun itam yooyu soxal ñu. waaw bu ñu si amul lu doy ni ñoom li ñu am tamit ñu commencé def ay recherche. fagaru daal waaw fagaru. fagaru gën faju fagaru balaa ngay. ah fag naka lañ ko wax balaa ngay lakkale. gis naa fan yee benn réew république démocratique du Congo def ay essais hein d'envoyer une fusée. c'est vrai amul résultat bi ñu bëggoon. mais recherche noonu la ki njëkk a defar avion dafa defar di daanu di damm. mais bon mu <coughs> defar avion. mais africains sont démarré ils nga gis ñuy reetaan ouais waaye waa ji mu ngi nii mënu sa def fusée bu dem non comme comme commencé na rek nañ ko jàppale. <laughs> Sénégal am na fi kuy def recherche armement xaw ma lan jàpp ma turam. mais tous ces jeunes là. faut les encourager. les accompagner les encadrer. miser sur nos ressources humaines. waxuñ nak duñ coopérer ak ñeneen. Mm-hmm. mais faut africains yi sénégalais yëpp ñu xam ne li fi ne nañ ci jàpp mooy indi résultat. aywa euh, nee nañu benn minute maa ma tuut bi deux minutes lay doon ci lu gaaw du ma ko fi invité mu nekk rek euh, directeur bu coopération ak partenariat caisse et dépôt et consignation bu Sénégal euh, ci lu gàtt rek. Hmm. loolu maanaam lan la dañ koy dégg rek CDC. caisse dépôt waaw mu ngi si loi bi loi bi voilà caisse dépôt et consignation am na hmm. tur yu bëri ah. yenn hmm. saa yi ñu wax caisse dépôt et consignation am na pays yu mu tudd caisse dépôt de gestion comme Maroc. am fu mu tudd caisse dépôt de placement. comme Québec muy boîte yu mag yuy nekk si réew mais lan lay jëriñ. Mm-hmm. mooy xaalis boo xam ne euh, wóorul fañ ko bàyyi rek dañ leen ko war a dénk. ok voilà tey xaalisu pétrole. Mm-hmm. bi si génn si réew mi ñu lañ ko dencal génération future. Mm-hmm. ah réew yi am caisse dépôt xaalis yu mel noonu d'habitude caisse dépôt lañ koy dénk. ok tey yow nga dem di jënd terrain. notaire bi war a def transaction. man may jaay terrain. soo joxee notaire bi xaalis bi te man. notaire bi di vérifier sama terrain boobu ndax kayit yi leer na si diggante boobu xaalis bi yow moomatoo ko man moomaguma ko moom notaire bi moom ko war a dénk caisse Euh, euh, épargne sénégalais yi. Hmm. même chose retraite am na si loo xam ne am na nu ñu koy tëralee dañ ko war a jël dañ ko caisse dépôt donc de manière générale dans le monde caisse dépôt kër la yoo xam ne lu ñu wax fonds errant maanaam xaalis boo xam ne bon errant bi c'est entre guillemets. Euh, leerul fan la war a kan moo ko moom. dañ ko war a dénk caisse dépôt pour kenn bañ ko luubal. moo tax dafa war a sécuriser ay fonds maintenant su koy sécuriser du ko jël teg ko di ko xool da koy fructifier. pour mu fructifier ko nag day utiliser ay support yu wóor maanaam da koy dugal foo xam ne. waru ko perte waru ñëw lebal ko sama benn frère mu daan <laughs> voilà donc xaalis ba si judd nag mu investir ko si économie réew ma. macha allah réew mu ne nag souvent si réew yi àdduna bi yëpp dafa am loo xam ne problème am lañ koy fekk entreprise yi muy les PME moo tax caisse de dépôt yëpp ay def financement PME presque. Mhm. Euh, euh, logement social. réew yëpp am problème mu ay kër. Mhm. logement wala appartement. Mhm. donc dañ leen wax ñu financer le logement social. beneen bi mooy euh, le développement territorial réew yëpp. xam nañ ne pour nga suqale ko foog say gox yëpp si pale ko dañ leen di wax ñu financer seen i gox am na nag ñeneen ñu yokk si ay yeneen comme la politique de la ville parce que aduna bi dafay urbaniser wu d'ailleurs mhm, mhm, mhm. à l'horizon deux mille la population africaine euh, dafa nar a gën a bëri Sénégal dafay dafay doubler donc yooyu yëpp dafay wane ne ay questions prioritaires la ñuy laaj Caisse Dépôt ñu financer ko mais pour mu financer ko xaalis yooyu ñu ko dénk lay fructifier maanaam lay fexe dugal ko fu muy jur xaalis pour moom mu mun ko def. waxoon naa la ko dinaa ñëw uniquement émission boo xamante ni ci. kees de bopp kese kese kese la ñu daan Samba El Hadji Amadou ñu ngi lay jaajëfal waxtu bi jeex na. waaw non man maa leen di jaajëfal yéen vraiment Vibe Radio moom dama leen di jaajëfal parce que gis naa ne. ñoom tëddee nañ njaaxaanaay <laughs> voilà du ma tudd kenn nag mais am na ñoo xam ne tëddee njaaxaanaay bi des na voilà mais vraiment di leen ñaanal jàmm di ko ñaanal ñi ñuy déglu mm-hmm. voilà di ko ñaan si réew mi di am mbégte ñu fii mu doon El Hadj du Samba di eh, directeur bu coopération ak it partenariat kes dépôt et consignation bu Sénégal nekkoon candidat ci mairie bu Tëngéej nekk ba tey njiitu parti bi ñu naan ànd Mouhamed Ba moo nekkoon ci jàppandal bi Mamadou Fall doo leen ko dégtal incha allah ay bés bi dinañ fi ay bés bi ñu dëgmal dinañ fi teewaat gannaaw ba dañ seen application bi ñu teew nañ wéy leen ak ñun ci Facebook Twitter Facebook Twitter Instagram ak sunu chaîne YouTube ak si canal bu ngeen numéro 557 14h YouTube ngay am ak Anta jàmm ak jàmm. hashtag news sur Vibe Radio. The best radio station on Vibe Radio.